gaa yi ñu nuyu di leen ziar yéen nga xam ne yéen a suivre en sport ñu war a ñëwoon ci benn vidéo wax ci classement bi nga xam ne Naby Djelit wax na ci innocent bu Sénégal xam euh, a xam ne yéen ngeen abonné te li nga xam ne mooy cloche de pour ngeen mën am ay vidéo à temps réel fii ndax loolu ngeen ñu mën doole ah, ba ñu éteindre li nga xam ne mooy suñu objectif ngeen di commentaire di partage suñu ay liens di sant ay cœur ndax bu ngeen defee loolu rek ñu mën a éteindre li nga xam ne mooy suñu objectif balaa kan bi Sénégal nag la 15 la war a football ki nga xam ne mooy bi nekk premier match ci kan bi mu nekk kan boo xam ne Sénégal da ko war a dóor pour mën taxaw trois points xelam maa ndax premier match bi suñu kan ci lay baaxee ci lay boole ndax ci lañu xam ne dañoo war a jël pied ci lañu xam ne lu ñu war a jël ndax pour boo jëlee pied boo génnee sa quart de finale day leer dañuy final ngay wax léegi ñëw ci e, équipe nationale Sénégal gis ngeen xale yaa ngi entraîné ki dafay jaar ñoom Sadio Mané na ci fit gu doy waar nekk fa li ne mooy Côte d'Ivoire ah, franchement e, xel yëpp dal nañ ci taxaw bi nga xam ne gis nañ ko ci gaynde yi gis ci gaynde seen xar kanam nekk benn am ambition am benn gëm-gëm mooy gañaa li nga xam ne mooy CAN bi te jàpp naa Sénégal dafa war a gañaa gañaawaat bi ndax dañoo yéex ci coupe d'Afrique ni ma koy waxee coupe d'Afrique maximum dañ cee war a gëm ne dañoo war a finale yi da équipe bu ñor kenn ñor ko Sénégal bi nga xam ne ñu euh, euh, jàpp nañ Sénégal boo teg mën naa dóor damit yoon ne am na yëkkati dafa Sénégal bu tegee ni war a départ la onze départ la ñu tàkk nañ war a tàkkee dafay dóor Gambie sans ay difficulté ndax Sénégal équipe bu yor Gambie yoru ko club yi ñu for Gambie football ko tam mu euh, ne défense bi Sénégal yor pour Gambie dugal ci Sénégal day jafe te vidéo dañ ñu wax ci avantage Gambie wax ci avantage Sénégal wax ci faiblesse Gambie wax Sénégal gis nag mooy 4 3 bu jik Sénégal la fu Sénégal dafa ñaar da koy man loolu jàpp Jacob Coulibaly Moussa Ndiakhaté euh, fii ngeen di sabali génnee mel bi ngeen ni Pape Gueye Idrissa Gana Gueye Lamine Camara nga bàyyi Pape Gueye ak ki nga xam ne mooy Lamine Camara indi Iliman Ndiaye ca kaw mu nekk numéro 10 Sadio Mané Ismaïla Sarr nga technique à Jackson pointé bu ko defee gàmm ngay football toujours yaay garder bal bi pour am avantage pour mën a dugal wala teg milieu terrain boo xam ne yow gàdd yow gàmm yow a séddoo terrain bi muy des fois gàmm dem occasion yi kari mais fekk da kaw ko diis am numéro 10 mel ne Iliman Ndiaye mu dribblé toujours ngay créé Gambie dañuy xool lu ci génn mais du sañ a créé